yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan ci Dakar Buzz TV ni ngeen ko gisee nag tey dañu ñëw spécial ndogu àndandoo ko euh, association bi nga xamante ni ay tailleur Sénégal ñoo ko rek daal di ëmb muy association maître tailleur du Sénégal di mat ñoom la ñu seet si fii euh, tey ci benn tali fas yéene àndandoo ñoom ci euh, benn distribution de ndogu bu ñu fas yéene amal tey mu nekk seen première fois nag léegi-léegi ñu dem xool na la ñuy doxalee mbir Thank you. internet yu waa Dakar Buzz euh, tey nag ñoo ngi fii si euh, benn tali euh, tey nag première dimanche weeru koor bi kan moo woote waa Adesmat ñoom ñoo organiser tey joxe ndogu ñu ngi fii ak seen président chargé de l'organisation bi muy loo loo tey lan la Adesmat woote tey. salaamaaleykum waa mag donc maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu waa Dakar Buzz ñoom ñi nga xamante ne si tey dañu bàyyi seen temps lépp ñëw. fas yéene ànd ak ñun ci ndogu bi nga xamante ne si fa yéene nañ ko def ak première démarche bi soxna nag may am contentement bu mag parce que ADESMAC dafa nekk association boo xam ne Sénégal la ñu wax muy association bu mag boo xamante ne si mun naa ne lu ñu bëgg rek ci réew mi suñu borom day def ñu def ko ni ñu ko bëggee ba tey ñu ne première dimanche bi gars yi dañuy def ay ndogu waaw loolu daal la gars yi doon kii quoi. waaw ñu bëggoon a xam ndogu yi tey nan lay demee lan la ADESMAC préparé pour ndogu waaw ndogu yi nag tey moom lu ma ne dara manqué wul tey wax dëgg fa yàlla gars yi jàpp nañ ci bu baax a baax a baax gis naa gars yi nu ci taxawoo gars yi seen xaalis am na ñoo nañ ma xaalis bépp bu bëree bëree bëree biir adresse mag baawu ma kenn ñëpp ma jox wax dëgg fa yàlla gars yi taxaw nañ ci niñ ci war a taxee ba tax na tey ndogu yi mën naa ne ku ko rate moom non bu ñu la ko moom da ngay jooy quoi ah, kon yi ñoo ko déggandoo loolu nee na tey ku yi da ngay jooy ah, tey ñu ngi fii ak les femmes de Desmat gis nañ leen ñoo ngi nii toog di takk seen tàndarma Euh, seen présidente mu ngi nii euh, waa Dabis ñu gis leen ngeen toog tey di takk ay tàndarma ci première dimanche weeru koor bi lan la ADESMAT nar tey. Ah, ADESMAT daan ñëw tey rek indi ndog bu baax fas yéene teral suñu mbokku waa benn comme ñun moom ku ñu xam rek xam ñu ci lii teraanga social ak def lu baax moo tax tey waa ADESMAT yëpp boole seen doole. fas yéene ñëw indi ndog wi neex teral waa benn tali pare ñibbi. ba la reine du Taïba ñu gis ko tey ci euh, ndogu adesmat bi ki ne tey lan la adesmat di waajal tey. waa adesmat euh, ñi ngi waajal joxe ndox bu set ndogu bu set te sell ah boo xamante ne du manqué dara di def euh, ku ñu xam-xam ñi ci social tey ñu bëgg a teral suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo woor lépp rek ci adesmat dara jeexu nag. les jeunes. les jeunes euh, de la DESMAT l'association des maîtres tailleurs du Sénégal ah ñu gis leen en action nag ñu nekk di takk tàndarma waaw waa aada VIP bi moo ngi nii aada loo waaw ndogu bi gis nga euh, nu ma ko mën a waxee waa ADESMAC tey ñoo booloo ne dañuy def ay ndogu bendeel waa benn Télégue waa ñaar Télégue Grand Dakar yëpp muy doon social boo xamante ne bi yàgg nañu ko def seen mbir la kon tey boo boo leen fekkee ci action yi xamal ne lii la ñu dëkkoo ADESMAC lii lii la xam lii la ñu mën di def lu baax di wax lu baax di jàppale ñi nga xamante ne bii seen loxo jotu seen ginnaaw te ñu bëgg a ndogu ku romb fii rek bu soobee yàlla di nga ndogu ñëpp la ñuy jox ndogu tey. ñoo rek di ah, ñu ngi ak euh, Daawur. waaw xanaa kontaan rek euh, mu doon loo xam ne suñu mbir la di mbiru képp ku tailleur te nekk Sénégal ñëpp bokk ko waaye xam nga ñëpp mënuñu fee teewandoo donc teewaay bi ñu fi teew nii nekk fi di defar ndogu nii fas ko yéene jox jaamu yàlla yi. dañ koy defal tailleur yëpp ci turu Adesmat waaw Adesmat nag dafa nekk benn euh, association boo xamante nii euh, lii mooy seen mbir maanaam Adesmat moom euh, kii la xam don la xam social lépp lu ñëw rek dinañ ci dugal suñu loxo incha allahu fexe nu mu gën a yombee ci jaamu yàlla yi ñu def ko waa ñu ciy gërëm suñu président bu baax nag ndax liggéey na ci liggéey bu am solo ak ñu mu àndal liggéey bi yëpp secretaire général Modou Faye mi nga xam ne moom lañ nekk buntu place am itam ñu ko ciy gërëm bu baax ak comité d'organisation bi ci euh, Aliou Lo jiite ko euh, wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo pour l'instant te incha allah ñaan nañ yàlla ñëpp gis ci seen bopp. incha allah dafa mel ni nag ñu ngi ak euh, borom Al Amine Couture tey loolu ngay wax ci journée bi. waaw journée bi li ma ciy wax gërëm ñëpp sant ñëpp kontaan ci waa ADESMAT xam ne initiative bii daal lu rafet la ndax 8 mars bii passé rek. adesmat ku leen xam-xam leen ci social 8 mars bi passé rek génn nañ ci raison yi dem fu mel ni ba Thiès joxe ay ay don jàppale seen moroom jigéen ñi tey tamit ñu ngi nii yënguwaat ci wàllum ndogu di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla lafal cat rek ñu yeggalee suñu kanam ci ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw li ma ciy wax rek xanaa kontaan ci fier ci lool wax dëgg yàlla ndax adesmat moom waaw ñun moom ci social rek la ñuy dox quoi te rawatina amul amul xaajeeg seen ci dara quoi bien vrai que loo moom mooy moom lañ moom lañ jox pour organisation mais tamit bi bi ma bi bi bi ma ñëwee dafa mel ni affaire yi moom dañ ko partagé rek bokk ko ñun ñëpp waaw di sant bu baax gars yi. Euh, Osé ah, ah Osé création bi Ibra Gueye waaw ndogu adresse moom wax dëgg yàlla moom sant rek sant bu wér a wér a wér wax dëgg yàlla nga nel la rek. ndax weeru koor moom wax dëgg yàlla ngay teral ay doomu aadama moom loolu moom ngëneel kese la quoi wax dëgg yàlla moom ñu ngi gërëm waa adesmat ñëpp yëpp surtout prési dafa fall waa yooyu ñëpp daal ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax baax a baax li moom ngëneel la yàlla na yokku affaire bi daal euh, macha allah daal waaw yàlla na yokk daal yàlla na yokk baax baax baax. allez ba tey ñu ngi fii ak euh, Soxna Khady Fall euh, yor lépp loo ci wàllum social bi tey tamit mu toog ci ndogu li ah, Soxna maa ngi leen di ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar. lii waa ADESMAT xalaat ko mu nekk lu rafet ñu ne pourquoi pas waruñu def benn ndogu première dimanche ñu def ko nag macha allah pour bëgg a bégal waa benn tali xam nga ci loolu daal lañ ci jublu. Mm-hmm. ci instant bi ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni mooy président association maître tailleur du Sénégal di ADESMAT euh, ñu ngi lay nuyu président. waaw soxna si maa ngi leen nuyu yéen waa Dakar Buzz ak waa TFM ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax. may la nga présenté wu pour ñu lay seetaan. waaw mu présenté wu rek man la Moustapha Fall laa tudd euh, PDG PDG Bara Couture euh, président ADESMAT association des maîtres du Sénégal. association bi depuis ban année ngeen ko créé. association bi def na 6 ans léegi ñu ko créé ak léegi quoi. li tax ngeen def social. waaw parce que social ak ak ak association ñoo ànd ñun depuis bi ñu commencé à euh, Adesmat ba léegi dañuy yëngu ci social donc euh, muy koor yi muy ak euh, ñu néew doole gi ak ñëpp ñoo xamante ni day yëngu sociale social dañ ciy dox ñu association bi quoi. ñaata membre ngeen ci biir association. association bi actuellement bëri xam naa SG mooy gën a mën a wax ci loolu moom boo ko jëlee après dina la mën a wax exact euh, ñaata membre moo si nekk mais association bi daal li ko tax a jóg mooy boole xam ne suñu doole boole suñu xam-xam boole suñu xalaat boole suñu lépp euh, def loolu loo xamante mooy suqali euh, ñaw bi nga xamante moom moo nekk fii ay secteur artisanat loolu moo tax a jóg association bi actuellement bi waaw li ñu si àndandoo mooy kontaan rek mooy loolu la lay walli xol yi ànd na xam nga doole yi ànd na tamit xam-xam bi ànd la donc euh, di ci remercier waale ku ci mel ni suñu papa bi taxaw muy suñu papa doyen Amar Ba moom tamit mu nekk ñun nekkal magal ñu xam nga jàppale ñu donc euh, ay xale bu mu ne ànd ak mag rek parce que si moom la quoi donc loolu dañ koy rafetlu bu baax euh, tax na xol yi ànd xol yëpp ànd nekk benn association yëpp benn nañ muy góor ñi ak jigéen ñi lépp donc euh, lépp lu ñuy def rek ñoo koy jugandoo defandoo ko euh, jàppandoo bàyyandoo donc euh, jàmm jooju am na fi quoi te yàlla mu yokk ko uh-huh. <coughs> loolu di si kontaan rek parce que tamit koor dafa ku lay xam ne weeru jaam yàlla la. te ñun tamit euh, am na ñoo xamante ne ñi nekkee seen kër di ndogu am na ñoo xam ne ndogu si heure ci yoon bi la leen fekk donc loolu moo waraloon initiative ñu ànd ci comité organisation ñun pour pas du ñu def euh, ndogu ñun euh, noo de ñu def ko dimbalee ko ñi nga xamante ne dañ leen ndogu bi dafa leen fekk ci yoon bi donc bi mooy saison première édition bi ci njëkk a def yàlla dogal mu réussir comme ni mu ko ngeen ko gisee nii donc ñëpp rafetlu ko kontaan si donc dañuy ñaan yàlla mu nekk ay ay saison yu bëree bëree bëri ba nga bëri ba nga xamante ni dinañ ko mën a def parce que jaamu yàlla la donc non bàyyiwuñu fenn carte yëpp lañ koy def incha allah ci kattan yàlla bëgg nañ ko def fu nekk donc fii lañ ko xëy na fii lañ ko commencé bentali parce kontaan nañ ci yendu bi ñu yendoog ñun fii xam nga jàppale nañ leen si euh, ci ndog yi nga xamante ne ñoo ngi fi ñu ngi ko fiy def am na am na ñoo xam ne ndog bi si mbedd bi lañ leen fekk donc ñooñu tamit kontaan nañ si te niñ ko defee Yëmbal fépp rek foo ci Sénégal euh, fu xam ne membre arrondissement ñi ngi foofu ñu defee ko foofu incha allah papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Euh, tey ñu bàyyi la nga présenté wu déjà. man la El Hadj Omar Ba nekk ci membre ADESMAC waaw. Euh, tey nga féetalee na mag ci ay atan euh, nan nga gisee association bi nga ànd ak ñi nga xamante ni ay tout tànk lañu bu ñu xoolee say ak par rapport ak ñoom. xanaa gis leen ñu nekk ay xale yu am jom xale yu bëgg la ñuy def yu jëmale ñëw kanam te ku leen xool rek di nga mën a xoolaat sa bopp ngir xam ne ñoom dañoo jël wàllu couture bi. moderniser ko ba nga xam ni di ko jël di ko importe di ko yóbbu bitim réew te euh, franchement ñëw fi mu toll woon ñoom dañoo jël dépassé jël ñëw bi yóbbu ko feneen fi nga xam ne moo ëpp fi mu nekkoon moo tax franchement man man nangoo ànd ak ñoom nekk seen gannaaw di leen topp te ñu nekk xale ñu nangoo xelal ñu am jom ñu am passif ñu gëm ci li seen bopp te gëm la ñu def. lii ñu def ñu xam ngëneel bi nekk ci euh, jullit bu woor ba ngoon nga jox ko mu ndogu ban gis-gis nga am ci acte bi ngeen def. xanaa santaat yàlla julli Seydina Muhammad ñoo xam ne tam ñoom li ñuy def nii loolu ñu jëlee seen ñax bopp yaakaar ñu te seen poste la ñu jël dimbali ko delloo ko ci jaamu yàlla yi loolu dañ ciy sant bu baax a baax. asalaamaaleykum mbooloo mi donc waa Lo Création la ñu gën ma xam ci Aliou Lo donc ma chargé des présidents des jeunes organisations donc ADESMAC ànd seek Xous Diallo ak Papis Création donc gars yi dénk ñu loolu pour organisation ci association bi quoi. lépp lu fi organiser lu ñu fi organiser rek si loxo la nekk tey nag ñu yàgg bu ñu falee bureau bi yàggul donc ñu falaat euh, membre yi ñu jiital ma donc ki nekk sama adjoint ki nekk sama troisième adjoint mais liggéey bi tey li fi jaar yëpp ñun la ñoo ko gérer quoi. tey liggéey bi li fi jaar yëpp yéen la euh, noo leen àndandoowee euh, ci liggéey bi ndax defe naa yéen ñi ci bëri yëpp ay jeunes lañ ndax yomb na di jiite seen ay morom. waaw non yomb na yombul parce que actuellement ni dañu toll fu nga xamante ne Euh, amatul kii mooy def lii amatul kee mooy def lii parce que eh, group la ñu ba pare association la ñu wax léegi yàlla xam na ne lu ci bari moom day wax nii rek mais lu ci ëpp moom moo ko organisé depuis démb ba léegi. parce que man maa ngi waroon ñëw teew mais lu ci bari sax teewu ma ko dañ may woo rek ma ne nekk leen ci lool leen def rek sa va quoi parce que comme group la ñu euh, organisation bi ñëpp lay laal gis nga bi ñu ñëwee yow la preuve gis nga kii day jàpp fii jàpp fii kii jaar gauche jaar droite parce que ñun ay famille lañ actuellement parce que 6 ans du ay caaxaan. ñu ànd ko di demandoo fu nekk di defandoo lu nekk xam nga di liggéey xam nga te ay ndaw lañ ay xale yu am jom ñoo ci nekk voilà léegi nag moo tax nga xamante ne actuellement ni ñun ak mois de ramadan bii nii liñ ciy def nii ngëneel yu mag moo ci am parce que ku nekk xam na ne nga woor ba ngoon xam nga ñu ñëw jox la benn tàndarma nga lekk ko rek loolu ngëneel bu bëri moo ci nekk gars yi wu amul kenn ku ciy jàpp ñun ñoo volonté wu ñuy joxe lii ñuy joxe lii gars yi génne seen xaalis dem organiser moom depuis ba léegi mu ngi ci vraiment di ko wax sappo parce que man ak moom la ak kii mais lu tax ñu def premier deuxième troisième voilà amul hasard parce que su kenn ki mënul rek keneen ki dina ko fa teewal moo tax moom dama koy wax sappo parce que man dama xaw a malade mais li ci li ma waroon taxawee moom da ko taxawee moo kii moo tax assessment famille la tey suñu ñëwee rek ñun ñëpp dañuy jàpp fii jàpp fii jéeri mooy xuus jàll waaw vraiment moom itam sappo xaalisam bu bari la gën a joxe moom itam mu gën a xaalisam bu bari joxe gars yi daal ñu ngi noonu franchement ñun amuñu seen fay parce que tamit dañuy xam ne ku ci def rek sa bopp nga defal quoi weer bi ñu nekk nii ku ci def benn rek yàlla dalay fay moo tax gars yi dañ doon njëkkante kii naan maay def lii kii man maa xam nga loolu affaire bu garaaw la kii génne lii lii xam nga loolu c'est grave voilà place bi ñu ko defee tim muy place Modou Faye Mously Couture rii bi nii ñu ngi leen di di leen gërëm parce tim depuis tout ñu ngi fi di déconné di waxtaan di fo di ree rek moo tax ñu ngi kontaan ci affaire di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw euh, muy première fois ngeen organiser ndogu donc euh, ni ngeen ko déggee ci seen naataango yi ñu ne réussir na ban yëg-yëg ngeen am déjà yéen ñi nga xamante ne yéen ndaxte association bi moom dafa nekk association des maîtres de terre nekk wàllum terre ñëpp bëgg ko quoi waaw ñu nekk daal loo xam ne ne kontaan nañ ci def nañ ci lu war lépp teg nañ ko suñu loxo wax dëgg si yàlla suñ président it kontaan nañ ci. waaw di santaat koñ bi rek bu baax a baax a baax ndaxte it xam nga mobiliser ay nit moom yombul daal. yombul te wax dëgg si yàlla muñal nañ ñu te kontaan nañ ci daal waaw ñu ngi remercier ñëpp wax dëgg si yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax. ça va sëñ bi. si maa ngi lay siyaar di la nuyu bu baax. bon man la Ada Fall ñu gën ma xam si Ada VIP Couture président de Sen ADESMAC waaw ñu ngi ci ADESMAC depuis bu ñu ko créé ba léegi depuis 2015 ba léegi ñoo ngi ci quoi ci liggéey liggéey bu rafet ak ñoo ci àndal. yow yaa jiite ndaw yi ci biir euh, groupe bi. waaw man maa jiite ndaw ci biir groupe bi. mu nekk ndaw yoo xamante ne ndaw ñu neex a jiite quoi ñu topp sama ginnaaw mais fakastalu ñu ma ba pare lépp lu may def dama ci waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne bii nañ jégoo ci kàddu muy ndaw ñu neex a jiite. bon en fait may lancé appel benn appel ba nga xamante ne euh, bi eh, ADESMAC parce que association la boo xamante ne du ko nit ñi di waxee association VIP non association tous les maîtres tailleurs de Sénégal la képp kuy maître tailleur rek ñu lay woo nga ñëw ñu bokk parce que mbiru mbiru Sénégal gépp la li leen tax a jóg mooy développer eh, mode sénégalaise kon képp ku nekk ci mode bi ñu ngi lay woo nga ñëw ñu jàppandoo liggéey te jëmale affaire yi ci kanam incha allah.